nañ nappkat yëpp di ci jubilé. bañ soow nanguy sebet. Hmm? wolof nee na béy bu bañee soow nangum sebet boppam la ko def hmm. ah, ah, xam nga benn texte bu ci Guy Marius wax laay la laay xool mu neex ci man lool danee leen lan bon débarras et sans regret au bateau de l'Union européenne l'Union européenne vient d'annoncer que elle ne renouvellera elle ne renouvellera pas son accord de paix avec le Sénégal. mu ne en réalité l'Union européenne sait que l'accord de l'accord ne sera pas renouvelé du moins jamais les nouvelles autorités n'accepteront pas les termes de l'ancien accord de paix défavorable au Sénégal et qui a transformé nos pêcheurs artisanaux en passant vers les îles Canaries et forestière mu ne le Sénégal sous Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ne ferme pas au monde mais ne bradera pas son poisson ni ne sera pas l'herbivore d'aucun carnivore Guy Marius Sagna man ma andil ko ko ci wolof mm-hmm. ne leen ñoom Europe na seen ngelaw nangu mbootaayu Europe gi nee na ñooy duñ yeesalaat seen dëxalante nga doxoon sunu diggante ak ñoom mm-hmm. nun saa senegaal yi li xew kay mooy ñoo gënoon a xam ni sunu njiit yu am fula yii duñ mas a nangu genn torlu torlu mooy signé guy lor sunuy nappkat di leen def way mbëkk wutali barsa mbaa barsàq senegaalu Diomaye Sonko tëjalul kenn ni wuntam waaye du saax-saaxe géejam bëgg lu neex meneen réew ci àdduna si bay lor ñoñom hmm. Guy Marius di ko jaajëfal bu baax xam nga Sénégal dafa bari ñu nekk senegaal te yéenewuñ ñu jàmm seen bopp képp moo leen ñor intérêt général waxuñ ci dara intérêt général bi Sonko def dem ba xam ne mënut a nekk candidat lu may ñu jalgati constitution bi mu ne sama jëmmu taxut warut a tax ñu jalgati constitution bi joxañ président joomaay boobu grandeur amuñu ko comme amuñ ko nag da na a jomb moo tax ku ko am mu jaaxal leen ba buñ doonee seytaane maas ak ma jambal gi di yàq li ñuy yàq beneen bi muy war nañu sant yàlla bi ñu amee ay njiit yu am kilifa Macky Sall biñ nee ko fi caq daa daw ba ci sëñ Baara di làqatu naan daa ragal kaso sëñ Baara wax ak ka amoon kilifa muy Ablaye Wade Ablaye Wade teg ci suuf waaye Macky Sall kenn la fi faale wut benn sëriñ la fi faale wut comme li Idriss waxoon wala benn kilifa ci réew bi boppam képp ak njabootam moo tax. daa dem ba mbëkk miir bi par contre nag malgré Ousmane ko doole ji mu am yépp sëñ Cheikh Saliou ko woolu am na ñu doon wax sax sëñ Muntaxa waaye sax sëñ seex Saliou la far mu dem mu wax ak moom bi mu ñëwee ñu bàyyi yépp taxaw wan waa ji ne ko ñoo la ëpp doole ba pare ne ko yarul daal di kii loolu nag lu ñu war a sant yàlla la. Hmm. waaw. kilifa yu déglu seeni kilifa. waaw parce que Sénégal ñu bindoo ñun du ñu ay européen moo tax lii ñu am ci ñoom. dañ koy sant yàlla waaye ku ku am ñaan gu baax wala ngay julli yàlla di nangu sa ñaan ñaanalal ñaar ñi yàlla def seen diggante jàmm ak ak sutura bañ mhm. gën a gën a gën a gën a gën a gën a déggoo loolu mooy suñu ndam d'accord dañuy jeexal ak FMI parce que foofu tam am na lu flou lu ñu war a leeral parce que ñu bari ci ni ñuy jàllale information bi euh, dañu ne FMI moo lànk ne du jox Sénégal trois cent et quelques milliards alors que Sénégal moo ne du ma jël ndax dama bëgg am lu ma leeral ñoom FMI nag nee nañu du ñu joxati Sénégal dara lu dul li nga xam ne mooy audit yi dafa génn bali Ousmane Sonko wax leer ci seen bopp ba noppi. xam nga li ñu wax ci Union européenne rek xam na ne ñii duñ nangu lañ daan def. Mhm. ñu daal ne ñoom duñ renouveler waat la même chose la FMI wax. du ñu ko def fekk cour des comptes validé wul nangam nangam ñun ñu def lii di xaar cour des comptes validé ñun ñoo la gën a xam ne lii ñun ñu leen woon téye leen seen xaalis <laughs> ba ñun lañ bët ba pare ñun yàkkamti wuñ ko di. trois cent et milliards. cent quelques milliards day dara <laughs> loolu dara di Sénégal bu bëggoon mille milliards jamono yi am ko wala lu ko ëpp parce que na Macky Sall demoon lebi ba am trois mille milliards ñu di ko jox sept mille ñun ñoo ko gën a bancable ñoo ko gën a crédible te Sénégal li mu amoon ba léegi mi ngi ci suufam ba leb li mu war comme ni ko Macky lu taxoon Macky Sall la leb ba sës ba mbëkk miir bi teewul ñu koy lebal parce que xam nañu ne ci suñ suuf am na pétrole suñ suuf am na zircon am na cobalt basalte ilménite lithium bauxite tourbe lépp lañ am kooku lu soxla dañ koy lebal moo tax yàkkamti wuñu dañ téye seen xaalis xam nag ne fii leen jëm ngay taxaw naa non duma ko def fekk defoo li te xam ne loolu laay def bu ëllëgee nga ne waa li mu def di tax loolu yëpp amul benn sens na nit ñi xam ne dañoo am ay njiit yu mat njiit ay télé ki rajo yoo xam ne nag dañoo yàkkamtiwuñ lu mooy problème am musiba am wala luñ jàpp njort ne kii la ñu taxaw di ko wax ñoom bu ñu reetaanee duñ kekku soo xëyee fen bu ngoonee sànq maa koy wax benn waaye interpellé ci meeting bi mooy bu may jëm si fii mm-hmm. mu ne ma li nit ñi di wax comme benn télé bu ma mooy tere fenal Macky wala faral Macky boobu doon am xaw ma seen initial mu ne dañ cee dégg nang ma ne ko waa li ngi leen di jàpp moo leen may doole da ngeen leen di boycotté. il faut savoir désabonner dem leen ngeen désabonné lan la nit di abonné fenn foo xam ne nii ay fen lay dégg nga ngay désabonné da ngay désabonné ba pare même bu mënta ñàkk ba benn émission bu am solo boo fay seetaan sax bu la téyee ka cay wax wala nangam da ngay def dislike c'est pas bon ci ñoom ci côté algorithme bi fii nit ñi ñoo war a jeexal fen yi parce que li ñu nangu woon ay 2011 ay homme d'affaires français wala ñeneen ak ñeneen di jaar bëgg a nërmeel nguuru Abdoulaye Wade ba jaar ci genre télé yu mel noonu ba def li ñuy def loolu nit ñi ñoo war a am fula te am nañ fula nag parce que def nañ boucle derrière premier ministre Ousmane Sonko waaye moom it lii mu nekk bu mu ci jógee de. gis yàlla bu la joxee doole dalaa réglé loo Sénégal dala ko saafaraloo yàlla responsabilité bu mu jox doole bu la jox rek noonu la responsabilité da koy toll Ousmane responsabilité bi mu am ci dëkk bi amul keneen ku ko fi am bu réglewul dëkk bi moom la ko yàllay laaj ëllëg parce que yàllaa ko may doole mu mën a fay fal ay maire mën a fali député ba tey mu fal président hmm. tey mi ngi nii di taxawate bu ñu demee dimanche nga xamaat li ko yàlla may loolu nag bu la ko yàlla mayee liggéeyal ko ci li ñu ko war a liggéeyal te xam naa ne dégg na ma mu ngi ci xelam sax xam naa ne parce que noonu la mel tax ñaanal ko rek laa mën. léegi Ousmane Sonko premier ministre ak Ousmane Sonko président assemblée ban nga ci gën a bëgg. fi mu toll nii. fi mu toll nii. Hmm. bu élection yi jàllee premier ministre bëgg naa ko mais am na nu mbir mi di demee. ñii ñu bëgg indi ay kall kalleeg yu demee noonu na dem toog ensemble seetaan leen loolu yi bu ko defee saay-saay yi jaare ci feneen ak feneen parce que kii la après dangay pare parewaat di contrôler léeg ñu naan la lii wala daal loolu yëpp li gën a wóor mooy mm-hmm. nañ ñu dem ensemble ba jël ensemble bi ci ni ma ko bëggee mm-hmm. teg fa ku mat président assemblée am na nag ñaar ñu sama xel daj loo ne euh, su ma doon buur def ko xaj na mi ngi ci xelam buur waaye man de ñaar ñi ñoo ma gën a doy ci ensemble. kan ak Ba ak Mouhamed Ayib dafe surtout Amadou Ba. surtout Amadou Ba ci calme ci dal gi ak xam yoon ak yu demee noonu ku ci doon président assemblée ka ca des nekk président groupe parlementaire rek waaye man bu ma doon joxe tey Amadou Ba laa koy jox.